président Bassirou Diomaye Faye de même que ki nga xamante mooy Ousmane Sonko. waaw bon yooyu yëpp bon on peut peut-être que juge bi mën na ko considérer comme des injures publiques man kooku c'était c'est des c'est des. il n'a n'a pas été arrêté. il n'a pas été mmh. président il y a pas de réaction on insulte le premier ministre il y bon je, je disais tout à l'heure la justice pour le moment elle n'a pas encore été réformée. Mmh. Elle n'a pas encore été réformée. Mm. Ce qui était là, c'est ce qui continue le fonctionnement. Effectivement. Alors, évidemment, euh, il y a toujours des impairs. Mm-hmm. impairs yi mënuñu koo bañ. Mm-hmm. Euh, nañu xaar ba réforme yi am. mardi comme je disais euh, les choses seront sur la table du président il va décider. Mm-hmm. man ce genre de de de de de, de faits divers man dama ko jàppee ay faits divers. dama jàpp ne loolu wax wax dëgg waruñu noo waruñu tardel tout à l'heure ndem mu ngi doon wax ne y a des yoo xam ne tey moom la ñu war a am ne ay kilifa yi waaw mais loolu loi bee koy encadré loi bee koy encadré loi bi nag il faut ñu maanaam il faut ñu ñi koy ñi koy appliquer ñoom ci seen bopp il faut ñu teg leen ci yoon mooy réforme yi ñu bëgg nii sànq euh, le ministre mu ngi doon waaw mu ngi mu ngi mu ngi daal suñu kaw ne il n'est pas d'accord il a le droit de ne pas être d'accord mais il y a il y a un il y fait qui est réel mooy le président Sonko wala le président Diomaye musuñu leen dégg ñu wax loo xam ni c'est anti-républicain on est dans un combat politique. combat bi les les mots peuvent être durs. Ah, les les mots peuvent être durs. mais mais mais ils connaissent la loi. yaa am na limite boo xam ne ñoom duñ ko franchir te ñun gis nañu loolu on est on est des des des des hommes politiques on on est objectif parce que ñoom ñoom waaw bon li nga li ngay wooye insulte li ngay wooye insulte li ngay wooye insulte bu dee mooy dina ma rey mbala ma rey ko kooku dama jàpp ne kooku kooku sa interprétation la hmm. mais loolu du insulte je crois que am na li ñuy wooye insulte dafa am signification boo xam ne moom la ju yi di ko di di di di di ko interpréter. donc vraiment pour pour wax ne. quand il dit on de waaw loolu bi mu koy wax loolu bi mu koy wax j'étais même dans la coalition Sonko président. te man de waxoon naa ko ne wax de man man du kaddu yoo xam ne man dina ko wax mais mais mais mais terewul. yooyu xam nañu ne ci ay waxtaan la ko defee. ci ay waxtaan la ko def te de mémoire. waxewu ko dans un dans un espace public je pense que dañ ko jottali dañ ko génnee dañu ko génnee attention non non attention mais mais mais ah, après tout après tout on est des on est des hommes mhm. avant d'être des hommes politiques on est des hommes mhm. ku ci ne bu nekkee këram am na sañ-sañ libéré wu wax li mu li li ne ci euh, xëj na sax xalaatuloo ko mais imaginer un républicain qui dit il faut les tuer mais kooku xam nga ne loolu c'est des expressions yoo xam ne souvent les gens utilisent ça quand ils sont énervés mmh. quand ñii dañ leen war a kii sax dañ mais c'est pas parce que da ko wax que nee na nekk na ci yow mm-hmm. Mm-hmm. rawatina na bu dee un homme publique nga yow xam nga ne am na loo xam ne doo ko wax en public mm-hmm. parce que loolu mun na indi ay jafe-jafe ñii ko génnee nag ñoo la ñu wax a seet lu tax ñu génnee ko xëy na dañu am ay intention mais pour dire que euh, li xew effectivement c'était inimaginable et c'est c'est c'est c'est c'est insupportable lii président Macky Sall def di tëj nit ñi à droite à gauche am na ñoo xam ne dañ doon dox ci mbedd bi yor seen téléphone ñu gis ci photo Ousmane Sonko téye leen ne leen acca si si on a la preuve de ça on a la mais je vous dis oh, y a y a un quelqu'un qui fait ce témoignage ki ñu jàpp moom moo def témoignage boobu te policiers yi la ñu joxoon doole boobu parce que procureur bi moo leen gemboon mais procureur bi nag dans le BRT quelqu'un a dit jërëjëf Macky et on le prend. yooyu yooyu yooyu yooyu man je rentrerai pas dans ce mais ah pour dire simplement que. Mhm. il va être temps. Mhm. que ñu réformer effectivement. le code de procédure pénale et le code pénal. Mhm. l'article 139 euh, wax naa ko sànq. procureur mooy jékki-jékki def mandat de dépôt. te du ko motiver. day ñëw fekk la sa kër sax ñu ne la kirtim tëj te kenn mënu ci dara parce qu'ils ont. la force euh, euh, publique parce qu'ils ont les, les forces de l'ordre qui sont avec mais ce n'est pas normal yooyu dafa war a dak te je pense que aujourd'hui lii dal euh, Sonko mun naa wax ne njëriñ la pour Sénégal parce que tey ñoom jël nañu ay engagement yoo xam ne ñoom xam nañu ne loolu injustice boobu waratuñ ko teg benn Sénégal te ñu ngi leen di xaar foofu itam donc je pense que loolu c'est quelque chose boo xam ne euh, mun nañu wax ne c'est un mal pour un bien mais lii seen régime bi def. Mhm. ci côté boobu. c'est un recul très manifeste. loolu ñëpp wax nañ ko te je crois que euh, preuve yaa ngi fi à l'appui. xëy na histoire bi dina ko gën a firndeel. moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens yoo xam ne ñu bind li nga xam ne moo xew ci période boobu. Mhm. ci wàllu euh, injustice sociale yi yi am yëpp. parce que loolu dafa nekk loo xam ne dañ ci war a jële ay njàngat. pour l'avenir merci.